inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man léegi laa ko dégg rek bàyyi li ma doon def yëpp ñëw suñ mbokk la suma papa la moo tax itam bi ma ko déggee ma ñëw waaye Sénégal moo perte perte nit kilifa kilifa diine euh, doon koo xam ne euh, doon porte parole xalif Tidiane di ko def ñu ngi fàttaleku sëñ Abdou Aziz Dabaax fàttaliku sëñ Abdou Aziz Al Amin fàcc fàttaliku ñi nga xam ne kilifa yu baax yëpp daan def su dëkk bi amee dog-dog wala metti métti ñu wax foog naa dégg ngeen ci rajo bi toujours li doon wax ci feebar bi ak mbas mi ni ko waxee woon mooy yàlla moom dafa amee ay armeem doomu aadama moo dëgër bopp wante yàlla moom ñi ko topp su leen waxee rek ñu def yàlla moomu nag moom moo dogal li nga xam ne moom loo dogal tey euh, di doon loo xam ne lu métti la lu lu tiis wante dogal borom bi moom kenn mënu ci dara walla kulli alin day day ñëw comme ni mu ko doon waxee yàlla na ko yàlla xare àjjana bette na xam ne dina métti Sénégal yi métti ñëpp mais noonu na yàlla dogal mu ngi jaale ñëpp jaale waa Sénégal xam ne ñun ñëpp ñoo manqué ñoo manqué ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo am loo xam ne tey tey tey tiis la ñun ñëpp ñoo perte ah mais euh, comme ni ma koy waxee rek àla ah, kuliyalin yàlla moom li muy def moom du ci tàggu kenn nañ ñu yàlla may xolu muñ may ko waa Sénégal yëpp defal ñu nag jàmm defal ñu sutura yemale yëf yi ci lii ñu ngi ko koy ñaan moom borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom mooy dogal su ko neexoon tey tey tey nii jant bi di jógee di ko sowee ni weer wi di def mu arrêté li nga xam ne moom mooy feebar bi yàlla na ko def yàlla na sutural àddina yàlla na nit ñi demaat ca seen sago yàlla na yàlla def sutura euh, xare àjjana sëriñ